bon ñun waxu am na koo xam ne duñu tudd turam parce que dañ koy may buzz ñun mayuñu mayuñu ko buzz soxlawuñu mu ñëw di buzz li mu bëgg ñun xam na ko mais il ne sera jamais maire de Dakar jamais Moustapha Lo ne sera maire de Dakar Abdoulaye Diouf Sarr fii la dëkk fii la juddoo ñun ñi di wax ak yow xam nañu kuy maamam waa kër Binta Diène Pay la fa la bokk Ndakaaru la bokk te waxul waxul ndakaaru ba léegi de talagul waxul ndakaaru santé bi ko président dénk te mu nekk mbas mi nga xam ne dafa jaaxal àdduna si loolu la Abdoulaye Diouf saar toll parce que xam na ne président da ko dénk liggéey dafa bëgg a jël responsabilité bi ko président jël mu yenu ko mu jël ay technicien wu santé yëpp teg si wetam fu feebar bi toll nu ko koy wax fu feebar bi nekk nu ko koy wax nu nit ñi di dundee mun koy wax naan moytu leen feebar bi jël leen mesure barrière barki dem dafa woote yoof ne dafa bëgg a jàppale ñu nekk si secteur de la pêche ñëpp dakaar Ouest en général dakaar laay wax quai yu bëri mu invité leen jox leen subvention quai bu nekk ba si ñun ñii man maa ko demoon jële ji man maa représenté yu woon Soumbédioune waaw kooku noonu su su mënul woon liggéey kooku dina dina am xalaat boobu bay àggal si suuf à la base di jàppale pour nga xam ne dañu war a jël mesure barrières yi pour feebar bi bañ a wu war a yokk ni xam nga ñun la leen soxla ñun soxla nu wax ju bëri Macky Sall falul Abdoulaye Diouf Sarr pour wax ñun kooku duñ ko may buzz tolluwul Abdoulaye Diouf Sarr si weewu gëlëm Abdoulaye Diouf Sarr du moroomam moom moo tollu si wax na dem wax. wax na ne Dakar ñoom gagné élection yi moo tax. moom xanaa moom jëmmam moo tax lépp parce que ñu ngi déglu sax moom suñu moom moo fal président parce que ñu ngi koy dégg mu naan dama dugal sama xaalis sax président maa ko jàppale maa ko def la ñun faluñu kooku ñun Macky Sall le président de la République bu Sénégal mi ngi tudd son excellence monsieur Macky Sall c'est pas Moustapha Cissé Lo. Moustapha Cissé Lo du nit koo xam ne ñun waroon ko mën a jàppale ñun xamuñu ko gëmuñu moom li muy wax te dégguñu moom tamit moom lu muy wax parce que du Abdoulaye Diouf Sarr dépassé na dàgg sante vraiment c'est un homme d'État c'est un grand monsieur soxlawul ay tontu wala di topp xam nga lan mooy problème Abdoulaye Diouf Sarr nu mu jéemee dàq mbas bi parce que ñëpp xam na ne mbas bi sonal la àdduna ñun si problème mu feebar lañ toll moom si problème mu faj la toll parce que loolu la ko président digal. te mi ngi koy dox guddi ak bëccëg joxe na subvention xaalis kee yi joxe na ay denrées joxe na ay loo xam ne lépp dafay def protection pour mesure barrière nu mën ko jël si population dakaar yi waaw kooku lan la lan la lan lañ ko desalati. waaw ñun daal élection yi di ñëw ni ngi koy jàppale ni ngi si gannaawam guddi ak bëccëg ñun Mareyeur Soumbédioune su ma nekkee sax nag ab moolu Soumbédioune su nekkee ne waa dakaar ni ngi koy jàppale ñun Abdoulaye Diouf Sarr lay jàppale ni ngi si gannaawam tey ak ëllëg. di ko pousser di ko encourager mu gën a dox gën a jéego gën a am confiance président bi ñun tamit ñu ngi dénk président confiance bi mu am ci Abdoulaye Diouf Sarr na ko gën a renouveler. na ko gën a renouveler parce que li mi ngi liggéey mu ngi jàppale doomu aadama yi mi ngi liggéey mbas mi jóge ci réew mi lekkul naanul nalawul kuy wax waxu politique nag nan ko bàyyi mu wax waxu politique Abdoulaye Diouf Sarr tollul waxu politique bu su tolloo ci waxu politique dina wax mais ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ay nawam bëggal ko bëgg dakaar soxale ko juddoo Dakar màggee Dakar xam Dakar. nekk jun fii di fi liggéey ñun xam nañu Abdoulaye Diouf Sarr li munu jaral ak li muy def si dëkk bi ñun daal ni ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla moom li mu bëgg ak fi mu bëgg a àggale euh, Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr feebar bi jóge fi yàlla na ko yàlla defal may ko ndam boobu ñun population Soumbédioune population dakaar ni ngi si gannaaw Abdoulaye Diouf Sarr tey ak ëllëg te dara mënul tax nu jóge si moom